ba ci Eumeu Sène maa ngi gis Aziz Ndiaye toog ci plateau naan la jëlal Balla Gaye 2 boo ko jëlee xamal ne mooy sa kale yàqu na dañ teg lu métti ba ci Mame Ndiaye sama mii ginnaaw bi leen nuyoo ziar lii ñu faral si daan Yëmbël Vision yi ñu ngi koy dox mu nekk diggante Franc ak Ama Baldé ñu bëri jàpp nañ ne Franc dafay duma Ama dafay daan bu fekkee combat bi taxaw na dinañ waxtaan diggante Modou Lo ak Balla ndax combat bi mën naa taxaw wala Balla Gaye day jël waxtaan al imam ñu ngi général ñu ngi lay fay di ñaan ci réew mi jàmm di ko ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha bismillah am na solo al imam fi ñuy commencé mooy gis na ne combat bi am nga ci résultat bu baax macha allah diggante euh, Balla gay 2 ak tafaatin Tine am nga loo si waxoon mais teewul am na yeneen combat yoo xam te ne taxaw na euh, combat bi euh, mi ngi nekk diggante Modou Lo ak Siteu daanaka léegi ñu bëree waaye nag ñuy ngi wax naan Modou Lo dafa war a dem bëri ji ak Balla Gaye te Balla gay daanaka deux fois bu ñu jógee ci lool Eumeu Sène ñu ngi koy wax ak Balla Euh, Franc ñu ngi koy wax ak Ama mais fi ñuy commencé mooy balaa ma la laaj ci combat yooyu dama bëgg ñu tuuti ci seet bi ngay seet parce que dafa ma jaaxal saa bu ma la laajee nga wax ci loo xam te dafay jaaxal ñu bëree bëri. Mm-hmm. Imaam yan façon seet ngay seet ba combat yi su ma la si laajee nga wax ci lu leer nañ kenn du ko dindi. général seet gi ma yor daanaka wax dëgg yàlla du seetu gone tey damaa toog ci lu yàlla yor lu wér ba nga ñëwee seet si ma laa doon Balla Gaye 2 su ma woowee te daan ci far force waa wala déet. dëgg la loolu li ko waral na mooy yor lu wér. Mm-hmm. moo waral loolu jamono jooju coow li bari noonu wóor ko ne ni ma vaar jàpp ne li ma wax noonu ay waxi kese la man bal maa wax dama koy teg fu leer mhm. gis ko càmbar ko mu nekk lu wér ma soog a génn ko wax am solo wàllu seet moom nit ko su may seetlu loxo ko mhm. jox ma turam ak santam ak turu yaayam moo mhm. ko lépp lu nekk ci moom li ci kanamam li ci ginnaaw lépp ni mu koy génnal lépp lay nëbb di ko làq-làqal bu ma seetloo nga xam ne génne lépp teg ci taabal ji say fan bu néewee danaa la waajal tafay see boo xam ne li nga wuyu sa borom waaw am na solo bi loolu jàllee dégg naa sax nga waxoon ma ci affaire Mame Ndiaye Savon mais dinaa ci ñëw parce que li ma waxoon it jaaxal na ma lool te Mame Ndiaye Savon gis na ni ko bëgg euh, balaa ñuy commencé ci lool Balla Gaye 2 ñu ngi ko bëgg a doxaat ak te daan na ko deux fois te ku ne xam na ne Modou Lo mi loo xamante ni lu ko mat tubéy la yi rek tubéy mu nekk digganteem ak Siteu diggante Balla Gaye 2 ak Modou ndax war na mën a taxawaat ndax Modou mën na am victoire ci kaw Balla gay 2 Modou Lo de bu ko jëlee ma xam ne amuti mbokk bu jëlee bu jëlee Balla Gaye ah. ma xam ne amuti mbokk mais Modou Lo c'est normal mën na daan Balla Gaye parce que dara jaral. bu uh-huh. jël Balla la moo tax nga wax loolu. ñu ngi koo jekk bu yàgg te loolu ba léegi ma nga fa. ba léegi. Mm-hmm. su ma déggee maanaam di daal Tapha Tine kon mën na daal Modou Lo. mën na koo dal moo tax combat bi moom ba ay mbokkam nangu ma am. bu nangu ma am gënut ci moom baaxul ci moom. mais suñ ko fayee comme ces cent millions yi muy laaj. di fay gënut ci moom baaxul ci moom. Mm-hmm. waaw. dafa mel na nga contre Modou Lo li ngay waxee. non pas contre sax dama ko bëgg dama ko bëgg a dimbali rek teeraat rek taxaw dëgg yàlla ma ma amoo ci benn intérêt mhm. lu ma gis laay wax rek waaw li nga ko jekkoon ni nga ko defoon ba léegi ma nga fa dañu am solo al bi loolu jàllee bëgg naa ñu waxtaan tuuti ci beneen combat bi moom yaakaar naa combat bu baax la ci Balla Gaye 2 parce que Eumeu Sène daf ko daan deux fois te ak façon bi mu ko daane benn bi mu dóor ko kuy yu bëree bëri mu metti Balla Gaye lool metti Aziz Ndiaye ba Aziz Ndiaye bi mu toogee na Eumeu pour bëri ak moom mais balaa ngay leeral foofu dama bëgg ñu waxtaan ci noob noob nekk lu am solo yan façon noob ngay noob ñu door dem ci combat yooyu. waaw wàllu noob moom nit bu ko bëggee du ma sekk mu leer ma lu lu wér da te ay tappale amu ci ay jaaxaan amu ci boo ñëwee sama kër toog ma noobala nga dem sa yoon fii nga toog nga toog ma faj loolu moom wax dëgg yàlla méttiwul. mais noob yooyu nekkul noob yi xam day gaaw a toj. non man lu ma xas ba def moom man rek maa ko mën a dindi. am na solo damay neex ma dindi ko rek. am na solo balaa may laaj ci combat yi dinaa laaj euh, tey ji euh, nit ki xam te ne dañoo jël euh, as corom wala sax ki xam te ne dafa bëgg bëggante ak moom ñu bëgg ko may mu ñëw affaire bi jàmp lool ndax mën nga kaa dindi ci diir bu gàtt. day toog ma dindi ko loolu méttiwut. macha allah am na solo. maa lay laaj sànq ci Balla Gaye 2 Eumeu Sène mu nekk combat boo xam te ne Eumeu seen daan na Balla Gaye deux fois te Aziz Ndiaye nee moom Eumeu seen la soxla pour bëri ak moom ndax combat boobu dina yomb ci Eumeu seen wala ci Balla Gaye. du yomb ci ñun ñaar ñëpp combat bu day waar na bu fekkee dem am te ak nga amam sa njortu ko. ak amam njortoo ko. déedéet. Mhm. dafa am gënut ci Eumeu waaw mm-hmm. ba moo ciy duggoon na waaj bu baax a baax taxaw fu leer soo koo jël. Mm-hmm. waaw gudduñ toll ni bu ko jëlee dana xaw a métti loolu ci moom. Mm-hmm. waaw am na solo euh, bi loolu jàllee euh, bëgg naa ñu waxtaan tuuti balaa may dem ci maam Ndiaye Savon ak li ma wax parce que li nga ma wax yéem na ma jaaxal na ma trop euh, dañuy gis nga def galaaj yu am solo fan yi passé gis nañ ay nag yoo xam ne yaa ngi koy rey ci àll bi bi nga ko reyee gis nañ nga jël ay béjjën béjjën yooyu ci lan lay dox. waaw loolu da ci laay liggéeyee samp gi may def muy gi nga xam ne mooy dox ci am am wàllu të te doo dugg ko sox liggéey day faatu moom laay liggéey ci béjjën yooyu. Mhm. waaw yow moom mi ci jëflanteel wax dëgg yàlla. Mhm. xam nañ ko ci man daanaka bari lu ma koy def sax. Mhm. am na solo bi loolu yàlla gis nañ ay ndombo yoo xam yaa koy faral di joxe balaa may dem Maam Ndiaye Savon ba bu ñu waxtaan ci lii parce que xam-xam bi daf jaaxal ndombo yoo xam dafa am deret. ndombo gi wax dëgg yàlla kilifa yi nekk Ndakaaru xam nañ ko. ndombo gi homme d'affaires yi nekk Ndakaar xam nañ ko. maanaam mooy ndomb gi nga xam ne moom boo moom mooy ndomb ak faju aajo. say mbir sotti na. mais deret ji lan la ci. ay mbir la du ko moom lañ koy naanalee. da nga koy naandal yi maanaam deret lay jël. Mhm. buñ ko naanalee ba noppi dangay doog 14 jours soo la ko jox nga soog ko takk. Mhm. waaye amul looy bëgg te doo am. am na solo ci loolu gis nañ yeneen ndomb aussi am na bu noir ak yeneen yu weex aussi. waaw bu fekkee bu ñuul bii mooy dox ci wàllu të. Mhm. ak wàllu am-am. bu fekkee bii la mooy dox ci wàllu kaaraange. ñu bëgg kaaraange ak wàllu rab ak yoo sonal leen. daanaka bu ñu ñëwee bii leen a jox. am na solo bi loolu jàllee sànq maa ngi dégg ngay wax euh, lu am solo euh, ci biir waxtaan bi Mame Ndiaye Savon lan moo tax ngay faral di tudd turam di expliquer. dama noonu ay mbir mu ma ci bàyyi wax sax dama ci bàyyi wax sax waaye foog ma génn euh, dernier lu ko daal maam bàyyi cee wax. Mhm. ndax damaa gis ñu koy fexeel te mbir mu sottee di gën ci moom. bu fexeeru gën ci moom mais man li ma si jaaxal boo waxee lu mel noonu damay xaw a tiit parce que dama gis ci jamonoy waari seek bëgguma sax delluwaat ba ci Gaston Mbengue soxla mu ñëw ci man waaye daal bu ne wut ñaan na ko def bëgguma wut ñaan na ko def waaw bëgguma soxla mu ko gis su ma nee wut ñaan na ko def. bu ma nee wut ñaan na ko def ma gis ci moom mi ñoo daal baaxul gënut. baaxul gënul waaw. am na solo euh, bi loolu jàllee bëgg naa ñu waxtaan tuuti aussi euh, samp doomu aadama nga wax sànq waaye gis nga joxe ay jaaro euh, jaaro yi ci lan lay dox. waaw jaaro yi wax dëgg yàlla général su ma ko joxee danaa la toogal say mbir yëpp lay dox. nga mhm. nekk nii ñun lañuy liggéeyee ci nag wu ñuul mi nag wu weex la. Mhm. dafa bu mhm. ma la ko joxee danaa la toogal say mbir yëpp day baax. parfois nga gis ma toog ci avion yi di ko yor ay kilifa ñoo may daggal bii ma leen koy yóbbul nit ku ne n'importe laa koy jox. am ko ci man mhm. na ko yóbbul lu jafe la mu jaaree. am na solo aliment damay dégg parfois ñu naan xam-xam bu ñuul ngay liggéeyee. waaw loolu laa xam te loolu laa yor man say mbir moom mu daanu teg teggi la. Mhm. waaw loo man naa ko loo mënu mënu mënu ma ko. Mhm. te moo ci lu ma mënut te xuma ci ni ñàkk fayda waaw. am na solo parfois nga gis ku mel ni Balla Gaye bi passé bi nga waxee ne buñ la woowee moom woowul ñu ko jege ñu woo la yan façon Balla Gaye amoon naa fi ak moom problème mu woon ma boole ko ko mais wóowu ma ku ko jegee moom woo fay ma alal ju yox tal ma def ci la may def mhm. mbir ma sotti mhm. waaw nee naa la làmb du xëppoo gàllaaj du kii non non làmb ma nga damay def heure bi sat ba mhm. yooyu ay kaaraange la ñuy xëppoo ay wàllu catagee mais lay daan mbër du ñëw isaat dama isaat wallaay na xas man su ma xasee ba xam saraxu mbër mi xam saraxu bis def la